complexe ñu gën leen a protéger ba fépp fu ñu fekk luy yàqu ñu mën ko waxtu daru leen ci fekk. ñu taxaw ci ponk boobu dal di laaj nag ana lan mooy lanceur d'alerte. bon lanceur d'alerte dafa nekk benn nit boo xam ne day euh, dévoiler information yoo xam ne day euh, porter ci activité activités yu illégales illicites wala contraire à l'intérêt général. warul am intérêt personnel si lu muy révéler lanceur d'alerte warul nekk journaliste lanceur d'alerte warul nekk activiste warul am benn mauvaise intention. Marie-Paul Konaré bokk ci plateforme bi nga xam ne ñoom ñooy aar àq ak yelleefu lanceur d'alerte yi ci Afrique di ko rafetlu ba noppi am yaakaar ne loolee di mbëbët bi dañu ko jëmmal. ñu ngi soutenir euh, engagement yooyu qui sont en accord avec lu PLAF di def Afrique en général et Sénégal en particulier espérer nag discours boobu dina am ay traductions concrètes euh, ci mandat au président bi euh, ak ak son gouvernement. dànqaafu muy lancé alerte ute na lool ak yàq der loi boo xam ne day protéger lanceur d'alerte su contenir benn définition bu claire ak précise de lan la ñuy woowee lanceur d'alerte ak benn délimitation précise domaine d'application lanceur d'alerte yi mënul raisonnablement am dérive uniquement ñoo xam ne euh, dañuy répondre critère u loi bi dañuy woowee lanceur d'alerte keneen ko xam ne kenn ko xam ne répondre euh, ci critère wu loi bi mënuñu ko woowee lanceur d' alerte. ci xamle terme bi di lanceur d' alerte ñaari sociologue français ñoom ñoo ko daal di inventé muy Francis Chateaurenaud ak Didier Torny ca année 1990.